boo demee euh, régler ay problème tamit doo fàtte ñi nga xamante ne ñi nga doon ñaan yàlla wàcc mu dox parce que ñooñu tamit ci lañ bokk. te xëy na peut-être peut-être jamono bi ñuy dund nii nga xamante ne mbas mi wàcc dafa nar a wàcc suñu croissance ba moins de un pour cent jàpp nañ ne agriculture bokk na ci li ñu ci nar a tuuti. dina nekk bol d'air surtout bu fekkee ne dafa nekk boo xamante ne euh, taw na vraiment. Mmh. donc pour man dama jàpp ne tournée agricole. lu am solo la lu war la. ci président. ci kaw rek bu fekkee ne yow da nga jàpp ne président waroon na dem Kër masaal pour xool ña fa nekk la ñuy dund. Mm-hmm. bu dee yow nangu nga loolu war nga nangu ne moom war na dem seeti aussi échantillon ay baykat pour ñoom it xam la ñuy dund xam tamit politique ba mu intégré ci wàllu mécanisation de l'agriculture. ci wàllu accélération de la cadence agricole mooy maanaam yokk jéego yi nga xamante ne euh, moom lañ daan def pour euh, agriculture bi di gën di naat. Mhm. Euh, ñuy ñuy gën di produire agriculture di gën di yor ay moyens loolu am naa yaakaar ne mënul ñàkk solo mu def ko ci ñetti région parce que ñun fukki région ak ñeent la am. Mhm. bu fekkee ne ci ñetti fan dem na ci ci ñetti région mhm. mais loolu signal bu baax la. kon àndoog opposition bii naan oui président dafa wàcc rek bëgg a defaat. man dama àndul ak opposition bay bay dama àndul ak opposition d' abord man président Macky Sall laa àndal man lu may lu may ànd ay opposition. kon ñoom seen avis bu ñuy émettre ça mais bien sûr que ça n'engage te très souvent aussi da ngay xool ne dafa tente mais d'une démarche boo xamante ne c'est une démarche politicienne. ah parce que li ma la wax nii bu fekkee ne yow sénégalais la war nga war nga ko mën a nangu même su fekkee ne opposant nga. war nga mën a nangu ne baykat yi président war na dem ci seen tool yi wax ak ñoom. mais à tout moment war na mën a dem. waaw mais yow. Hmm. mbas mi xam nga yow tu sais président kuy dem ci nit ñi la heure bii su dul woon mbas mi xam nga ne dugg na dëkk bi ñetti yoon ba ñeenti yoon. mais problème bi mooy directeur euh, nu mu ko defee ci biir euh, Covid 19 bi ñu nekk ñoom ñoo jël ñoom ñoo nekk état d'abord jël ay mesures interdit rassemblement nga def sa cortège di wër ci dëkk yi. ñii di def taxaw mobiliser ay militants aussi directeur c'est à revoir quand même. non président daal man li ma jàpp. moom mooy. Hmm. xëy na peut-être euh, euh, nit ñi xër nañu euh, xëy na aussi namoon nañ ko ba tax mu am yenn débordement yi mais jàpp ma ne benn yoon il s'est mis en danger ou a mis en danger les autres. ah oui ak rassemblement yi ñu gis yëpp. moom dafa demoon cortège bi ak militants yi rassemblé wu directeur. waaw mais xam nga tey. boo xoolee bu baax a baax président dafa jóge fii dem Toubacouta rencontré bi bi gis nga ne que geste barrière yi c'était bien respecté bi nga xamante ne moom autorité administrative yi ñi ngi koy jël ñi ngi koy ñi ngi koy accueillir. ñi ngi koy saluer way waaw très mm-hmm. bien donc loolu moo ci amoon solo. et les militants dans tout ça. waaw mais xam nga militants yi seen xër nit ñi yenn saa yi mënoo leen a téye. seen xër doo ko mën a comprendre da nga gis ni dañoo namoon président rek xëy na moom moo tax. mu am ay écart. jàppoon ne loolu raison de plus pour mu reporter woon lii ba ñu toll si jamono neex comme li ko wolof yi di waxee. loolu nag da nga ko koy jamono bu demee ba neex mu génn wàcc. saafante population da nga ko koy da ko koy da ko koy laaj. Hmm. mais daal wax dëgg yàlla. Hmm. man euh, xëy na peut-être euh, euh, mën naa mën nañ jàpp ne gis nañ deux trois écarts. Hmm. mais globalement quand même je pense que gis nañu une responsabilité. ñu gérer un processus mu dem gisante ak ñi mu war a gisante def liggéey bu normal euh, daal di dellu euh, ci liggéeyam bi nga xamante ne mooy quotidien am. d'accord directeur actualité bi aussi moom moo nekk euh, communiqué bi génn si Karim Wade ñu ne maintenant il est éligible mais il a retrouvé également ses droits politiques. waaw loolu day wax dëgg yàlla xam man nag man je suis un piètre juriste donc xaw ci droit lu bëri. Euh, ni ma ñemee xuus ci ay inondation noonu laa ragalee di xuus ci loo eh, xamante ne ndox bi nga ñeme sama waaw sama yoon nekku ci te xaw ma si lu bëri hmm. donc vraiment j'aurais préféré nga dem seet ku ko mën ku ko xam ku xarañ euh, ci droit parce que droit tamit suba su ma ci waxee lu nga xamante ne ma si dara hmm. luñ ma ci wax maa tooñ d'accord ah, am na nag lu ma ci xam def naa tuuti droit. waaye joxuma légitimité. Hmm. pour ma mën a expliquer ci débat yu xóotee noonu. Euh, waaye comme ñi ngi koy wax rek mën mais mm. cadre politique général euh, nga nekk bokk ci nguur gi moom mu nekk opposition bi mu retrouver ay droit am euh, suba mu jóge dowaa wàcc fii ci Sénégal ragaloo mu def benn coup fatal pour seeni régime ah, xanaa ñi fi nekk duñu ay opposant opposition yàgg na fi di démocratie yàgg na ci réew mi ah mais Karim dañ ko namoon de ah, directeur d'accord mais dama ne hmm. démocratie yàgg na ci réew mi mais aussi droit tamit yàgg na ci réew mi te démocratie ak droit kenn mënu leen a teqale parce que yow bala ngay nekk candidat dañ lay saytu ba pare xool ndax yow remplir nga critères yëpp pour nekk candidat boo remplirul critères yi mais kooku tu ne peux en vouloir qu'à ñun suñu candidat en tout cas rempliroon na critères yi yoon wañ ko tegoon aussi pour mu dem uti 65000 signatures am na ñu bëri ñu ko wuti amuñu ko moom am na ko am na yeneen naataangoom ay moromam yu ko am waaye ba ñu demee ca arène ba woote dimanche ñëpp voté mais gis nañu résultat bi nga xamante ne moo am loolu mooy démocratie. élection locale la ñu jëm de. Karim Wade bu fi ñëwaatee te gars yi ni ñu ko namee woon yaakaaroo mu yàqal leen seen i seen stratégie bi ngeen nekk di lal. Ah, dem sax booy booy ah, proposer ay ay statut de l' opposition. naan oui man politique moom dama lay wax benn affaire man poli man man je fais de damay def politique dama engagement politique man mbaw gëwuma ko ci politique man matte laa gëm. ah waaw matt la nit di yëg. c'est-à-dire mais mbaw. c'est-à-dire mooy mooy wax ju bëri. mooy wax a wax wax ba nit ñi defe ne yaa fi ne. kon da nga jàpp na ñoom dañuy wax rek. xam nga nañu nañu d'abord. Hmm. analyser li nga xamante ne jot naa jàll. xam nga loolu moo gën a neex parce que di analyser lu ñëwagul te li jot a jàll ne fi. mais li jot a jàll yëpp jàpp nañ ne da leen di nax à tout le temps da ngeen leen di nax. woote dialogue avant. yow loolu yow loolu nga jàpp. non man man kay man journaliste la man yooyu man man yooyu man mais yéen seen biir yéen acteur politique yi. waaw mais xam nga yomb na ñu la dóoree. Hmm. yomb na ñu la dóoree nga ne dañ laa sàcc boo gañee nga ne jaar na yoon waaye loo ca am jël mais Sonko plus fort reste la demee mais pour pour pourquoi neewul affaire bi dañ ko sàcc moom moom jëlu ko moom kon nangu moom comme nangu na comme moom mi ngi def assemblée nationale toog en tant que député plus fort reste moom kon jàpp na jàpp na bu tey jii nii bu ñu bu ñu dee wax bu ñu dee poser la question de savoir kan moo war a jiite opposition bi. Hmm. et c'est parce que sur c'est sur la base de li nga xamante ne moom lañ jongante nangu ko kon kay implicitement boo yuuxoo ne bañ nga tamit euh, bu li ñu naan bu mbul bañee lambay nangu. est-ce que newul gis nga au fond oui man dama jàpp ne bon fois dafa baax am na ñoo xamante ne. Hmm. sincèrement tey bu ñu jàppoon rek ci. circuit bi nga xamante ne moom lañ inscrit parce am na ñoo xamante ne bu ñu xëyee fii suba. te rajo yi di wax di wax di wax di wax. bu ñu leen nee réunir quatre vingt mille signatures wala soixante cinq mille signatures mënuñu ko.